asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Baye Xaadim Diop noo lay nuyu lu bare bare bare di la ndokkeel ci guddi gi ñu jóge di ndokkeel waa al ibada wal xidma audio bi bi ko dégloo dama mënatut a xaar ndax dama gàmmo si woon mbuur ci sëñ Moussa fi laa fanaan damaa naroon su ma su ma àggee door a door tontu waaye eh, mënumaa ñàkk bañ a dugg gi du dara lu dul kañ la ndokkeel la ñaanal la yàlla ak mucc ba yéene ji nga am ci Cheikh Mamadou Mountakha jëmm ji ñoŋ. waaw sëñ bi ñoom ñooñu boye boo ñu yëngu ba bëccëg ci lu leen neex waaye baatinu sëriñ bi akub cëram moom lottu nañ ci jege ko ñoom ñooñu muy ndaw soosu ak ñi ma ànd turi sax du ma ko tudd euh, jëlale naa sëriñ bi waaye ñooñ sëriñ bi rek mënuñu ci ñoom dara yoon wi mënuñ ci dara ñoom ñooy jéem a yàq far yàqu la ma sëñ Cheikh Ndiol waxoon na ma sëñ neewoon na ko koye bu di jéem ci yoon wi lu baax suñ Cheikh Njool ma ko wax ndax sëñ kenn mënu koo defaral kenn mënu koo yàqal danga koy jéem a defaral far sag defaroo juddoo ca yow wala nga koy jéem a yàqal far sag yàqu juddoo ca kon ñoom war nañ fasu seenu yàqu te ci daaneel leen la jëm amul sax luñ ci werante sëñ Muntaxa bu amee naqar rek musiba am murid murid yi mu yilif rek am na ci murid yooyu buñ maree sax musiba am te murid yi mer bari ba xaadim nag nii nga def bu yaatu woon léegi wax ji jeex benn léegi sëñ bi noppalu bàyyi ko ci jàmmam bàyyi ko ci aafiyaam mu nekk digganteem ak boroom boroomam nekkaa leellu naqar wii nga am sëñ Moustapha Mbacke moom sëñ Abbas barki démb bi mu may woo fi appel bi mujj mooy ay yuuxu ak i yuuxu ak i jooy ci lii ngóor si def ci xotti worma gi mu def ci sëriñ bi xotti ma mënta weesu sëriñ bu la suturaal ba nanguwul waa këram jege ko mu giseeg yow ci biir fekk na yow ay lal ngay wor mooy booy dugg na nga ko enregistré ba noppi mayoo ko sax mu wax la muy wax nanguwoo ko ko dégg yaa nga naan askay askay te mu wóor la ne da lay jubbanti waaye nangu woo ko dégg loola réerowu ci ak ndaw si ko yebal nañ waxante dëgg kii di wax lay wax rek lu ñu nas la su ma demee nii laay def mu ne ko defeel nii lu ñu waxtaane la ki ñu ne duñ fa jóg duñ tàyyi waaye ginnaaw ñoom ñoo munta tàyyi as yoon wi booye boo ñu nopp lu tëri gën yoon wi dafa am nu muy doxe jigéen yàgg naa amub cër bu góor góorloo ni ko góor di amee sun borom dafa yemale góor ak jigéen ci jëf fu mu tudd góor ci jëf tudd na jigéen ca wet gi inna al muslimina wal muslimat wal muminina wal muminat wal xaanitina wal xaanitat ila axiri yàlla bëre lu leen loxo ci lu baax waaye soo jàppee ne cër bi góor di am te lislaam jox ko ko am fum ko tàmbalee am fu ko yam yamloo yow miy jigéen yanu nañ la ba nga jàpp na danga ko am yaa ngi nax sa bopp ñii dañoo xamut lan mooy worma maanaam li sëñ bi siq ak ñoom baatu worma la ñu xamut mooy nga ñëw mu woolu la ca yoon wu njëkk wa bi coow amee ci biir ci njaareem yow mii bàyyi xarit bi nga nga naree wax ji leer ngay wut ay jumtukaay sëñ bi dana la jëru booba suutur mbalaanum suutura la lay njiir keroog maa ngi fàttaliku fii ñu toog njaareem ci fenêtre bi di di nuyoo bi sëñ bi daataan dugg ci biir sëñ Cheikh Abdou Latif ci boppam nee na ma lii nag waras na cee sàkk pexe waras na cee sàkk pexe ci nu mu gën a gaaw nga xam ne moom bis boobu am na lu ko naqari ci yi muy dégg muy dal ci sunu kaw te lislaam nanguwu ko rafetluwu ko ak njullit rafetluwu ko naqar wi ci ñépp am la ci am keroog waaye teewul sëñ bi dalee na wër yéen ñëpp ndar képp leen ba mu yër ko mbalaanum sutura mu génn ndànk ñu ni teetawaay mu teg ci loo xam ne nii ngaabu la ko defee pàkk bu sell boobu nga xam ne la ca sëñ Tuubaa wax ku ne dégg na ko fa la ko defee muy ñàkki teggiinu def loo xam ne lislaam mosu koo xam nga nangu koo def ci bi wane ne yaa ngi ci ron kilifteefu ki fi nekkal lislaam ci yoonu murit muy sëñ nga def ko taxut mu bàyyi mu woolu la wax ak yow wax ju dëgër li nit ñi xamul mooy du sëñ bi rek de ku sëñ bi wax loo rek li nga wax ak moom wax ju dëgëral la ngir mu dëpp mu lànk kon bàyyi xaarit mun sonn ñii duñ dëpp ba ba àddina di tukki duñ dëpp nu nit buñ dëpp nu nit buñ dëpp bu fekkee ñoom mën nañoo jënde seen àddina ak seeni caaxaan ñàkke worma sëñ bi nun nañ jënde sunu bakkan ak sunu doole ci seen kaw ci wormal sëñ bi buñ ci bañ dara ndax fitna ji sëriñ bi nekkee bam de sëñ mu tax ak tey ñoom ñoo ko teg ñoo ko ko teg sëñ mu tax xamul coow xamul li wax xamul awaa xamul awaa yiw la ñeene ñi yàlla bind ñëpp mbooloo mu tekkiwul dara bëgg a jóg teg ko fitna joo xam ne teguwul fenn loolu ci la ñëpp war a jóg ku ci gàttal lu it defoo lu rafet ndax sëñ bi jiwu ko kenn jiwu ko kenn te jotewut ak ñoom dara bàyyee na leen seen àddina duggut ci seen àddina xuusu ci bàyyee na leen seen bopp waaye noonu liñ ko dénk ñu bëgg koo xajamal du leen ko bàyyee kon nun ñëpp war a taxaw ci lii mu daj ngóor Sidi Saliou sàmm nag nun noo war a am fullay ndax it sëñ bi am na lu am ci boppam waaye noonu am na lu mu am ci moom nun noo war a am fullay kër ga ci boppam dootu fa teg tànkam waaye xaadim loolu sañ nañ ko jëggal fi lañ ko fekk waaye xaadim waxee suñ borom la mais ni ko suñ borom waxe dafa leer ki may tuubal ki may jéggal mooy ki jëf lu mu tayut tuub ko fi saasi loolu la yàlla wax waaye du ki teg néeg ba dee taxaw nga ne damay tuub suñ borom nee na kooku duma ko jéggal te njéggal nag yàllaa ko ëpp ëppale ñëpp ku ci yor dara di ko joxe rek suñ borom nga ko jële moo ca sàkk jox la ba nga mën caa waat kon ñii duñu tuub buñ doon tuub waxatuñ ko buñ doon tuub waxatuñ ko jigéen day jiite fii ci yoonu murit gis nan ko li muy jiite mooy lan ay daayira na ca bopp ba doomi kilifa yu baax yoo xam ne Seyxul Xadiim ma jur seen way wayjur ñu nekk président daayira jiite mbooloo ay taalubéy Sëñ Tuubaa yu baax yoo xam ne jiite nañu seen bokki jigéen mais fa jigéen war a tàmbalee la ñuy tàmbalee fa jigéen war a yem la ñuy yem kan moo ma sa teg bët ci àddina doomi Seyxul Xadiim ju toog te baax a ngi yem ci doon doomi seen Tuubaa baax mi ngi yem ci doon doomi sëñ Tuubaa doomi sëñ Tuubaa ju toog tàllal góor loxo mu sujjóot ci seen loxo yooye nga xam ne mus loxo yu yàlla gërëm la luñ ca bëgg a def def ko ci ci jaam bi waaye taxut ñu sañ ko tàllal déedéet te sëñ Tuubaa mi leen ñaanal barke bi ni mu ko ñaanale góor ñi ne ko la ko ñaanale jigéen ñi ñu yem ci barke bi waaye taxul ñu sañ ko xam nañ fi leen sëñ tuwaayam loo ñu yem wala ya barik fil banina wal banaat bi suratin awaluha wal aadiyaat barke bi sëñ bi ñaanal doomam yëpp góor ñaak jigéen ñaa ca yem waaye fa góor ña war a tàmbalee la ñuy tàmbalee yem fa ñu war a yem new góor fa jigéen ña war a tàmbalee la ñuy la ñuy tàmbalee yem ñu war a yem démb rek laa ci joxe misaal bi ma daataan dégg sa vocal bii ci biir kër gi ci buur ma daal ne jigéen lu mu baax baax am na fu mu yem ma joxe ci misaal ci sëñ Moustapha Bassirou ma ne leen ak taalubeem umpiwut ku yàlla bind xam nga li ko doomi sëñ Tuubaa jaral waaye man laa wax man Abdoulaye Diakhoum pa ànd na maa ngi moom kër soxna May mu soog ci kaw sol mbaxana te teewut mu xam ni kii mu toogal doomi sëñ Tuubaa la soxna moom yi fekk na ko njaareem ci saalu penk bi mu toog ci kaw sol mbaxana teg naa ci sama sëñ Abdoulaye gis mbaxanaam sëñ Mourtala du ko gis. sëñ Abdul Xaadir mosu koo gis teewul nag sëñ Moussa xam ne ñaari doomi sëñ Tuubaa yu dajala waaye sëñ Moussa xam na fa lislaam tàmbaliloo ak fa lislaam yamlu Baay Xaadim Baay bi ñii duñ mës a dëpp barke Cheikh Ahmadou Bamba duñ dëpp ñu doon dëpp dëpp nañu démb buñ doon dëpp déclaration yu sëñ Muntaxa bi mu génn wax ba àddina bépp di laaj ma xam est-ce que sëñ Muntaxa mii ñuy déglu mooy mañ xamoon walla déet suñ doon dëpp dëpp waaye xuus nañ ci àddina ba noppi dootuñ génn xuus nañ ci seen bakkan dootuñu deltu gannaaw ba fa àddina di tukki duñu dëpp gis nga fi ne bu nit ñëpp jógoon coow ba ñu rigal diir bu diir bu gàtt la ñuy rigal jógaat bu la ca kenn na waaye yàlla na la yàlla fay sab taxawaay yàkku deme na yow ci barke Cheikhul Khadim yàlla bu leen seytaane na sa far ci bëgg ci sëriñ bi waaye sëriñ bi yal na ko suñ borom wéy di may ndam ci lim soxla ci njaboot gi kenn munta tee kenn munta tee sëñ Muntaxa lim soxla ci njaboot gi mu am ko ndax da koo leble da koo liggéeyal da koo liggéeyal boroomam suñ boroom ku maandu la mu liggéeyal ko sëñ Tuubaa sëñ du ko seetaan mu képp ku jàpp ne li nga bëgg ci yoon wi te du noona da ko am ci moom yaa ngi nax sa bopp reem gi nag béralu ko kenn kersaam gi nëbbalu ko kenn mbaaxam gi tëyeelu ko kenn ba ba addina yi tukki jàpp na ne nu nit ki mën a mel war naa mën a gindi ko du tàyyi